mbokk journaliste yi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di jégalu ci tardé bi xëy na bi xaw na guddee waaye taxaw Sénégal dafa taamu balaa muy wax wala balaa muy génn di wax dañuy sukkandiku ci lu wóor démb président dafa gën def discours bi mu defee discours waxu décret la wax wax ne affaire bi assemblée lay jaar dafa amoon solo ñun ñu bàyyi suñu ay député ñu xam bu ñuy ko sax assemblée fa lañ koy jaaree moo tax tey ñu bàyyi ba commission des lois bu assemblée daje ñu jàkkaarloo yéen. commission des lois assemblée dafa ñëw indi dafa am constitution bu mel nii muy modifier article 31 constitution bi lenn moo ñu njëkk jaaxal mooy que ci travaux conférence des présidents conférence des présidents mooy boole bureau assemblée ak président de commission yi ñoom ñoo war a wax assemblée la mooy agenda wax kan la ñu def commission kan la ñu war def plénière pour la première fois loolu am le ministre Samba Sy ñëwul mooy ministre bi diggante. institution yi ak état bi tey ñu dem commission guddee ñu dem commission ministre Samba Sy ñëwul et amaana texte bi am na solo parce que texte dafa am constitution la kon ñu bëggoon wax askan bi mais pour la première fois ñu waxtaan assemblée le ministre chargé de la relation institution yi teewul waxtaan bi ñu indi ñu article 31 comme ni nga ko gisee ñoom liñ ci wax mooy dañuy changer constitution bi buñ ko changer. mooy que président présidentielle mu ngi war a am le vingt cinq août deux mille vingt quatre daal ci yokk ne fii ba le vingt cinq août deux mille vingt quatre maanaam à partir du deux avril ba le vingt cinq août deux président Macky Sall mooy continuer toog nekk président de la République ah ñu ne ah loolu nag dañ doon ndax li ngeen loolu mooy dëppoowul ak constitution Sénégal ndax ba ñu wootee référendum dañ ne woon constitution Sénégal am na loo xam dañ ko changé te kenn mënatu ko soppi article vingt bi ne. mandat bi juróomi at la te kenn mënu def lu ëpp ñaari mandat yu teg kon président Macky Sall defee ñaari mandat yu teg lu muy yokkaat un an article ne Sénégal république la kenn mënu ko soppi durée mandat kenn mënu ko soppi mu conforme ak jurisprudence 2016 bu conseil constitutionnel bi ne woon fii kenn mënu fi yokk mandat kenn mënu fi wàññi mandat waaw kon lu xew tey du mu bëgg yokk mandat bi te alinéa 8 article 103 dafa ne alinéa 7 bi kenn mënu ko wàññi kenn mënu ko changé kon tey lii ñu bëgg def dëppoowul ak yoon dëppoowul ak droit et waxoon nañ ko démb lépp lu ñu génnee ñun daañu ko attaqué au niveau de la cour ou du conseil constitutionnel mais li ñu tuddoo yëpp mooy taxawaay bi ñu war a am assemblée bi ñu nekkee soxtaan sax am na ay député yu commencé indi ay jalgal ak ay jaxase député bu mel na Aïda Sow Diawara bu parti nee na six moi yi baaxul. ndax élection yi dafay tombé ak màggal Touba màggal Touba mu ànd ak élection ba pare dafay nekk ci période taw bi boo demee dëkk yu mel ne ay Ziguinchor yooyu naaj nawet bi dafay commencé kon mënuñu def 6 mois dañ def at kon voté guñ sax waxtaan guñ sax ñu ngi dugal ay gàggal pour wax ne li ñuy yokk ci mandat président du 6 mois at la et je pense que kenn ku nekk ci yéen xam na ne benn bés bu Macky Sall def au delà du 2 avril bés la bu a xamante ne moomu ko daf ko ci li ko askan bi mayoon moo tax taxaw Sénégal taxaw ne incha allah demain nañu voté non non à cette réforme mais li gën a am solo mooy say jëfi tey dafa méngoo ak sa jëfi démb ñun li ñu santee yàlla mooy que ba ñuy indi référendum bi constitutionnel bi boobu Khalifa Sall mu woon bi parti socialiste dafa taxaw biir PS ne ah yéen a ngi wàcc seen ànd de parti bu mel na PS mënul bàyyi lii mu jàll ndax bu jàllee ëllëg dañuy indil ay difficulté depuis mars 2021 réew mi am jàmm ndax waxi troisième mandat waxi élection waxi politique ñun nag pas comme mel taxaw Sénégal mënuñu nangu loolu mënuñu ànd si loolu moo tax incha allah on va voter ba pare di woo Sénégal yëpp di wax ne képp ku taxawoon le 23 juin nga ni d'accord ma tey nga gën a war a gën a taxaw ñu ngi naan acteurs politiques yi yi fi nekkoon vingt 23 juin di xeex am taxawaay ne lii kenn waru ko ndax nag Wolof Njaay ne na bu sax saxul sàppali sax. yow mënoo dugal réew mi ci gudda depuis trois ans ñu vingt mais da nga bëgg a sa mandat de un an kenn du fi nangu et incha allah li ñaan sénégalais dina wax ni xam nga li ñuy def ñu dugal ay policiers en civil ñu dugal ay nervi mais bu Dakar Ndiaye jógee dem place Soweto incha allah ñëw gunge député yi ensemble ñu porter combat bi avec tous les députés de l'opposition pour que buñ jógee si nii sénégalais xam ne que c' est un peuple digne c' est un peuple